Euh, ci biir réew mi ak bitim réew mbokk yi xam ngeen ni tey jii nag ci ndigalal sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke di xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha la ñuy amal seet seetal bi nga xamante ni mooy bale Daaru Xuddus mbalem wàccaayu màggal ak Daaru Xuddus di bis bi nga xamante ni ci la ko tedd ki di seexul xaddiim fanaan seewoon ci dëkkam bu sell bi di Touba su masaana ñëw at mu jot Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xamante moo ko njëkk a woote. da daan woote ngir ñu setal dëkk bu sell bii di Touba digge woon ci ay digge yu rëy ci setal le moom itam daan ko tàmbali daan ci daan ko ubbi ci cosaan moo tax nag itam ñu ñëw di xeencu bërëb bi Cheikh Mouhamadul yi di xencu itam lenn ci jeexitali Cheikh Mouhamadul mustafaa ba tax na tey ñu ñëw fii ci kër Serigne mustafaa Diop sénateur moom itam am yenn ci bagage yoo xamante ni. donn na ko ci kilifa ya ñu yor ko di ko saytu ci bokk ci loo xam ne day symbole bisu mbaleem tey jii ca mbaleema Cheikh Mouhamadou Moustapha daan woote ak jëwriñam yu mag yooye ba tax na kon sées bi ñuy jàkkaar lool ci sées bi nga xamante moom lañ nekk euh, di ko saytu di ko euh, luñutu ñi ngi ak maire Njaaña soxna Njaaña lan nga ñu mën a wax ci sées bi ak loo ñuy fàttali comme que fekke woon nga jataay bi Cheikh Moustapha su ma saan toog ci sées bii nga xamante ni moom lañu nekk nii di ko euh, saytu taarixam ak cosaanam. ban fi nekkee fii si kër gi ah yaay bu sa faal. ma doon maami euh, Fallou si la mais mu taar si la moom ñoon fi man maa man ak lóota noo fi bokkoon di yaari gone mm. ku ne bu ma bootee xujje andi toog. lu ta boot maam bu safaa la ñu toog nu dend Cheikh Moussa dañu koy séex kii toogee ci gi wet kii toog ci gi wet nu daal di toog ñuy waxtaan nuy fekkee que reereet xamuñu dara boogoon nañu ndaw lan loolee nag sëñ Moussa bëggoon ko lool mu neex ko lool man lu ne defal nañ ma ci wax dëgg yàlla fu ne teral nga ba teral teranga bu ne teral nañ ma ko ci te man ndax man sama yaay dafa joxoon xujje sooda muy boot xujje bu mag yi bi Moustapha mii ñu andi ma fii ci dëkk bi bañ ma fi indi dañ maa fab rek teg ci ko wata ba xaw ma ca dara ba ma dekkee fii ci ko war sëpp ma ca wata ba ba ma andi ma suñ ma ruusaa buñ daan bay penc mi ko liggéey dara suñ buntu kër boobee moo doonoon ab toogukaayam siis bii lay toog nun nu boot suñu gone génn ci buntu kër bi dikk toog kii toogee ci géet kii toog ci géet maa maa busa maa yóota yóota di boot busa faal may boot xujja maa ngi busa faal mi nu bokk fi ne léegi sëñ bi bëgg mu neex lool dina woowaa ko waxtaan ak laaj rek loolu moom di ko wax si xamuñu dara sax boo waaye moom da koo neex rek loolee nag moom neex na lool nuyu itam bu ma toogee ba mu wii nag mu ne ah ndeke ñu si bëggaloon lii de baax na lool yàlla mi nga xam ne moo fi bàyyi nag moo ma bàyyi ba léegi man ma bokk ci wuur boobee waaye ñu ci bari nekkatuñ fi waaye nag maa ngi fi ba tey te maa ngi si ëtt bii ma sëppee woon it te dañ maa waxoon rek sëpp mu ci bañ may ba ma bàyyi bu du ñaan dénk yoroon muy 46 booba gone gu ndaw laa rek dañ ma ne cas rek ma sëpp ci oto xaw ma ca dara maa ngay ree rek dañ ñu indi fii dañ maa ne war fat di cëpp rek fi kanam fi kanam bàyyi moom. ndax fàttali ko leen ci suñu émission daal too wax su toogee ah, ne waxi gone moom waxi mag moom wax dama ko mën a jàpp sax ba di ko xamee noonu xanaa di bëgg lu baax rek bu ñuy liggéey lu mu ne leen góor ak a def leen lu baax ak wax leen lu baax rek saa yu mu lay wax bu ko waxee nun nun daan ne fanax teeg na ci yàlla duñ duñ soow duñ def daal dañ toog rek yor suñuy rak bisu mbale bi la ko daan def bu ñuy bal waaw bale la woon ndax wax day bay penc mi ak sénku gu mag daaneen si buntu kër ba sénku googee bu sëñ Modou Moustapha jógee Daaru Xudoos fa sénku ga lañuy wàcc lay wàcc si ñu génneel siis bi tey teg fa ñun ñi day gone seen ca biir kër ga nu daat daw ku ne boot sarak daw falax falax dikk toog bu sa ko xujjee toogee ne ma toog nii siis bi mu ne noonu ko siis bi yor yaa naay bii ak yitte yi. waaw kon lii daal nga gis Mourou Moussa. ah waaw daana ko yor daana ko yor pour toog rek di teg ko di itam yor si si garab gi si ron garab gi rek xam na fi léegi nii liggéey bu ñu fa weesoo ba xam ne jàll jot nañu door nañu ne ñoo ngi jàll si wàlla ñun ñii ñu fendi woon ndax nu toog fi moom di waxtaan rek ñun boo lii sax faa gudd ko ci ndax boo am muy gone ndaw dañ doon boo nu ni bor suñu rak rek dafa sëñ bi nu fekk ko fa bu ndee bu soriwuti ba mel ne fii teg jaxate yi dañ cay topp bu ndee fu mu toog mu toog fi wetam booba moom loolu rek rek moom waaye nag sant rek sëñ Tuubaa sant Seex Mustafaa na yàggal gone yi te yàggal leen ci wér a wér la te am jàmm te it sëñ Mourou Moustapha moog yaay sooda moomee la tax mu def ko day mbokkam sooda suri Seynabou Fall lañ ko Seynabou Fall ma ko jur Kumba Jéy Xari Fall Daaru Lo xujje Kumba Jéy la koy ba faam ma Samb war xajaa ñaram jox Penda Fall seen loolu la bokk ak Seex Mustafaa seen ñaari maam yee bokk ndey ak baay waaw mu nekk fa nag ñu jox ko ko mu yor ko daanaka yor ko rek far bay mu daan ma ko fa tax di nekkit ñoo ko bokk mel na maam mi waaye nag boo sama yaay moom bu du ko régalee rek mu def ko luñ ko tere mu bàyyi ko même ñi di gone ndaw yi mu ko rek xamuñu dara waaye lu baax rek lan bëggoon boobu xamewuma ko woon sax nag bon mu gën fee xam-xam bu gën fee yaatu waaye xamewuma ko woon noonu am na ci lu bari lu ma xam waaye da ci am lu ma fàtte am ci lu ma foogul woon ba du ma ko xam noonu waaye noonu ñaan rek jàmm te ñaan ngeen gudd fan sa rakk ji gudd fante yàlla jox ko bu jàmm ak yéen boole ko ñëpp ci doole sëñ Tuubaa maa ngi koy ñaan Seex Alxadim man na ko am na ko sëñ Mourou sa am na ko mën na ko moom rek lañ koy ñaan ñu nee ci kilomètre ban daal daw dem ban mënee liggéey bu ñu nee ci kilomètre nu daal daw dem ban mënaguloo liggéey fu ñu teg siis bi rek mu toog fi wetam di di di reeka foog suñuy rakk loolu dafa daan de sëñ Mourou Moussa moom euh, comme ci jëmm daa góore yi woon. ah waaw am koy civilisé mën a jekk waaw waaw boo kay ah, <laughs> loolu la man sañse bu jekk toog noonu ñuy liggéey ngay liggéey noonu gone la tax mën nu dara dañuy dikk fetam rek si booloo toog ci benn géet kii day toog ci géet kii toog ci géet rek nu dend sëñ bi na ci digg bi di nu laaj ak wax loolu rek ndeysaan boo moom dafa baax te lewet rek te baax nu <laughs> ne dañ koy laaj ak wax bu ngeen def naa nga mbaa yi defi woon waaw fu ngeen neen ndax bëgg lu ñu neex rek. kaalaam googu ndax li ah ah kaala gi du du du lu bari ba bu dañu da koy gàcc comme nii ma def sama kaala gi rek lu bari de sëñ bi kaala rek lu bëgg ñaan rek ngeen yàgg fi loolu te ànd ko wér te ne si ndigal te it ñoo bokk seen mel na maam rek ni ma la wax soo de si seen fan ko jur moo ko Cheikh Moustapha ñoo ko bokk. ak ak ci boppam ak gone yi ak ñëpp ñoo bokk mel ni maam di seey ku ne dégg na Cheikh Moustapha seey ba Cheikh Moustapha jërëjëf sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na ya ليعود نداوات نداوات mustafa sëñ Modou mustafa nag kuñ ci wo rek danañ ci sawar man de wax deug yalla fekkow may jamono way dégg na ci lu bari muy sëñ Modou mustafa borom mu fit la won borom mom xel la won borom mu dal la won te lepp la nga xam ne Touba da ko beggoni ni Modou mustafa Mbacke da ko def ndax bam ko wo bindu lettre ba tek ci ëpp ne ko sëñ Modou Moussa mu ne ko mu ne ko na fexe ba yóbbu ma Touba te bu ma ab tubaab tiim ndax boo sàgganee ba ñu yóbbu ma ca seen réew yu soro yooyeet kuñ fa dencati euh, da da texe kon nag fexeel ba yóbbu ma Touba sëñ Modou Moussa Mbàkke daal def loolu lépp ànd kook euh, sëñ Basiiru bi ñuy gasaay ba itam ñu ne ko tubaab yi jox ko dat boo xam ne bii ni ko léegi fo fo fu fo fo gas bi yem rek teraay bi àggutit fa lay yem sëñ Modou Moustapha Mbacke ànd ak sëñ Basirou Mbacke borom taar baak mbég ma ànd ak sëñ Modou Moustapha Fall mi nga xam ne mooy taaw maam Cheikh Rahima Fall sëñ Basirou moomee Mbacke mu mag ma fu fu ngas mi masa àgg rek ñu sempi baas bi dem samp euh, samp feneen mu ànd ba moo tax nga dégg ñu naan Moustapha Maggi Bass sëñ Modou Moussa Mbacke day ma gisuma ko waaye rakkam yépp a ko bëggoon rakkam yépp a ko bëggoon ànd ak dell nit ku ñemeeg njaboot la woon nit ku dal la woon nit koo xam ne boroomu fit la boroomam xel la boroomook dal la ba rakkam yépp a ko bëggoon rawatina nag sëñ basiiru Mbacke mi nga xam ne dañ ne sëñ Moustapha sëñ Modou Moustapha magi bas raay boobee bi ñu koy def ngas ma àgg na lu yàgg taddaat ba ko tubaab bi joxoon ak si ca date boobee ñu ko tubaab bi joxoon ne ko foofu raay bi eh, ngas mi yem te raay bi agsi wut fa lay yem sëñ Modou Moustapha Mbacké gas boobee raay bi agsi na lu yàgg te date ba jotul mu ànd ak ma ma ma sëñ Modou Moustapha Fall ak sëñ Basirou kon nag yàlla na nu ko yàlla ak yenente bi ak Serigne Touba fayal no maa ngi fii nag ci kër Moustapha Diop ndax sëñ Modou Moustapha Mbacké boromuk dal la woon boromuk fit la woon moom xel la woon lépp loo xam ne lii sëñ Touba da ko bëggoon ni sëñ Modou Moustapha Mbacke def na ko ba mu àgg man mii nag mën a xadi kon tey maa ngi fii ci kër Moustapha Diop doomi Serigne Ousmane Gabon ma sëñ Touba jëlee woon Gabon. jërëjëf soxna Njaaña leeral yi am na solo delloo nañu cosaan delloo nañ ca année 40 ginnaaw ba nga xamante ni bii ku tedd ki di Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul tànn dëkkaal ji ak boromam. ci 27 Cheikh Moustapha toog toogaayam toog jataayam waaye itam toog ab diir daadi woote ñu koy fàttali di fàttaliku itam bis ba nga xamante ni ci la fanaanse woon ci dëkkam bu sell bii di Touba ci nekk bis ba nga xam ni moo gënal ci ay bësam ba ko doon ñaan suñu boroom loolu yi nag moo tax suma sana wote woote bisu màggalug dar khudus di sunu muharram bay wajal bis ba ci set ak set sellal sées bi ñu gis ni ci la daan tok waye li ñu gis ni di jaasi jitam neena sonas ne su ko masaan a ci ses bi da ko daan tek ci wetam nga xamanteni da daan lu rawatina ak njàmbaar rawatina ak njom rawatina fulle waaye tam rawatina fit boo xamante ni lu ñu ko wax ci Cheikh Moustapha amoon na ca moom waaye itam liggéeykat la woon jaamukatu yàlla ndax kii kuy nekk ci àll daan nga ko yor ngir ngànnaay sa digganteeg rab yi kon Cheikh Moustapha yàlla ñu ko yàlla fayal waaye itam lii jumtukaay la boo xamante ni da ko daan yor ca yaakaar naa jumtukaay la bu am solo kon mbokk yi lii ab gëstu la boo xamante ni amoon nañ xemmemteeful indil leen ko ànd kook sëriñ Moustapha Diop mii nga xam ne moom lañ gën a xam ci sëñ Moustapha Diop sénateur ca muy léppi Daaru Xuddoos waaye itam ànd nag suñ sëriñ ba tey sëriñ Mamor Kayre di sët ci sëriñ Mor Kayre sëriñ Adama si nekk lañ ci caméra bi seen mbokkum taalib Moussa Diop ci présentation bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sigil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér.